Allah.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 bi mu nu mayee nu waat guddi gu tedd gi di guddig rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama di guddi goo xam ni ci la yonente bi sallallahu alayhi wa feeñoon nga xam ne jullit ñépp maase nañ di ko ci màggal di ko ci fàttaliku itam di ci sant yàlla itam ci xéewaluk feeñuk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama di guddi goo xam ni ku ne xam na ne ni ko Cheikh Saliou Mbacké mu baax ma daa waxe wuté nak guddi yépp ba tax na ku ko ak guddi gako jitu ba mbaa ge ci top néna euh eh, eh, manam eh, amna num ko la waxé Cheikh Saliou yaakaar naa ñu bari teewlu nañ ko jéddu wut ci ab julit mu yamalé guddi gi ak guddi ya, ya yi nga xamné ñoko ñoo ndax day go xamni ni bi ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam niko serigne bu mag bi yu bari da cee xew yoo xam ni day firndeel màggug feeñug rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam day firndeel itam riyaayu guddi gi ndax nuurun azimun qad yara bihi qusuura qaysara man kaana fi ummil qura mooy leer gu rëy goo xam ni dafa leere makka ba saam ni ko sëriñ bi waxee nga xam ne ñëpp gis adduna sépp leer nañ yëmut ci loolu mbollem liñ da jaamu ci kaw suuf dafa gësamu kérok ci guddi googee sawara wa fay ndox ma ngiss yoy ñu da jaamu yépp lu ci ne am jafé jafé xiram ya daanu nguur yu mag yépp itam yëngutu ci guddi googu iwanu kisran sadaa ni ko suñ waxe yëmut ci lolu asaman si ci bopam ñu gis bidiw yi di fekk borom xam-xam sax dañ koy firee ne dañuy te loolu alxuraan ñëw na ci waaye guddi googee la ca xewoon ci biddiw yi doon feq borom xam yi yi dañ koy firee ne seytaan yi nga xam ne ñooy diglu almalawul ahla ak malayka ya di diglu li nga xam ne mooy mooy mooy mooy moom la sunu borom di déy malayka yi di leen ko yónni ci yónnante bi ñooñee la biddiw yi doon dàq te ku ne xam na ne guddi googee teg nañ ci ñeen fukki at ya ñu doog a yónni rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon bis boobee la ca xewoon ci biddiw ya doon feq ak asamaan su leer si ak suuf si lépp leer loolu mbégteem suuf si la ak asamaan ci feeñu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon guddi gu mag la gu rëy gu rëy daraja itam ki ci feeñ nag muy sallallahu alayhi wa day jëmm joo xam ni ju màgg a màgg la ni ko sëriñ bi waxe sëriñ bi wax na ne sunu borom ci boppam moo ko tànn jaarale ko ci biir ay jëmm yoo xam ne yépp yu sell lañ kenn ku ci masa def masa def ab safaan ci ñim jaar amul ñene ñépp ñu baax lañ ñu sel lañ wa huwa al karim alladhi ma zaala muntakhaban min saadatin kullu fardin minhum fakhama mboolem ñi mu jaar ñu sel lañ ñu bax lañ ñu gëm yàlla lañ lañ mas di doon itam kenn ku ci biye yéefar mba ku ci masa def aw ñaawteef sëñ bi neena amut na amut xadistufi xadistufi min khiyarin ma ata ahadun minhum bi ma yuxjilul axyaara wal uzama xadistufi min shiraafin ma ata ahadun minhum bi faaxishatin turwa anil athari kenn ku mas def ab safaan ci ñi meññi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam amul nee na yàlla ci boppam moo ko sàmm sàmmal ko mbooleem ñamu jaar ba nga xam ne mësula euh, euh, jaar ci jëmm joo xam ni ab yéefar la mbaa kuy def lu bon moo tax mooy ki gën a mat ci ci li yàlla sàkk wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan dëhara wal mislu qattu lam yura walam yura fi chiyami suñu borom da ko def muy ki gën a mat ci jaam yi ci wet yëpp nag ci bindam bokk ca kenn rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama dinaay wax lu bari ne maanaam doomu aadama la waaye bokkut ak doomu yi dara yàlla ko mooñe noo xam ne bokkut ñoom dara ndax ku ne xam na ne <clears throat> yonente bi sallallahu alayhi wa sallama bu li ñuy wax ñaq ci moom saxaaba yi ko mela dañuy wax ne moo gën a moo gën a neex gëtt gi gën a neex parfum bi gën a neex ñaqu rasulullahi moo gën a neex nga xam ne ummu salim ummu ummu gis nañ yonente bi massa ñew ci kërëm yalla dogal mu teud nelaw yonente bi doon ko bari aw ñak ñak wi nak ta fi fi fi nga xamne ndax lal lal yi bo doon doon lal yo xamne ñak wi day dugg ci bir ñak wi ta mu diko tatan diko def ci bitel yonente bi mu joge ne ko waw li ngay def mu doon mu ne ko sa ñak wi de dañ koy raxé ak sunu parfum yi am ndax mu neexal ko ndax gis nañ ne booba ñaqu rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo gën a neex gëtt yi nga xam ne moom lañu am yëpp xam nga ko joo jëm ku ne xam ne ñaq moom maanaam maanaam maanaam du loo xam ne luy neex lay doon ci ci ci ci ci ci ci ci bakkan waaye ñaqu rasulullah sallallahu alayhi wasallam gis nañ moo gën a neex parfum bi gën a neex nga xam ne fi ne boo ko masaa jox loxo fi ne xet goog yi day day day des ci yow mbedd moom jaar rek wax na ne boo muñ fa bu fa ma ku fa jaar dina xam ne fii rasul lay moo fi jaar ndax xeetu jëmmam ju sell joojee dafay des sallallahu alayhi wa sallama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama li sëñ waxee wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan maanaam bindam moom da ci da ko bukkaliwut ak kenn cib taar ak ci wuuteeg mbindeef itam ndax li sëñ bi ka kaana yaraa awa yara kaana yaraa wa amaam mooy danaa gis ni mu daa gisee li ci kanam noonu lay gisee ko féete ginnaaw loolu imaamu ahmad nett na ca musnad ne ci njëlbeenu julit ñi buñ masaa di jullit da leen di wax ne ahsinu salaatakum fa inni araakum min xalfi kama araakum amaami ni may gisee li sama kanaw loolu lay gisee li sama ginaaw ba tax na kon li ngeen di def na ngeen ko xam sallallahu alayhi wa sallama xar kanamam boobee nga xam ne sëñ bi wax ne wajhu nabi anwaru min kulli munirin noonu ma ko waxee wajhu nabi axjala samsan am na feneen wax ne axjala sam samsan waaw nga xam ne leer goo xam ni dafa àgg ci yëmut ci leerug baatin waaye leerug zahir da caa ne ba ni ma ko waxee keroog day la mi net li na ne soxna Aysa mas naa nas puso ci leeru xar kanam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw kon kookii mooy rasulullahi sallallahu alayhi nga xam ne soxna Aysa radiyallahu anha albaraayu ibnul Aasib لأن وقت ما مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم برا, برا ابن العازب الفاني مسوما آه، فون قط parfum bu gëna neex رسول الله صلى الله عليه وسلم né laal itam lu gën a nooy tënkam loolee nga xam ne yaakaar naa sayidna kenn saxaaba yi abu sayidna abu hurayra wax na ne xariir muy sooy sax tenq tenqu rasulullahi moo gën a nooy sallallahu alayhi wa sallama loolu maanaam li ci gën a yeewu mooy yonente bi ci moom xamoon na ne yàlla ci moom dafa def ci moom lu lu lu kenn lu mu deful ci keneen ba tax mu leen ci daa dimbali gis nañ ca xajjatul euh, wada ba mu watoo genn wet gi moo ko séddale boom ñii mu jox leen ñaari karaw ñii mu jox leen genn karaw ke mu jox ko be la ko séddale xaaju xaaju wet gi nag mu jox ko boroom kërëb um-, ummu soleym borom kërëb ummu soley ummu soleym euh, teewluwu waaye gis nañ xaalid ibnu walid te yowmul mar yowmul yarmuuk karaw googee da caa amoon la féeteeg njëlbeenu kawarug rasulullah sallallahu alayhi wasallam defoon ko ci mbaxana nga xam ne daa def fu mu xeex rek te ànd sol mbaxana moom rek day xeex ba ñooy gañe keroog nag ci Yarmuk nag ca saam mbaxana ma rot mu bàyyi li mu doon def lépp di wër mbaxana mi ñu ne ko yow lii ngay def nii maanaam man nga noo indil jafe-jafe mu ne leen kat mbaxana mi kat kaawi rasulullahi da cee ne sallallahu te fu ma ko masaa bu neexee xam nooy gañe moo tax bi mu rotee wala mu réer moom faaw mu wër ko ba gis ko sallallahu alayhi wa sallama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama daraam ak leneen gis nañ a Zubayr Abdullah ibnu Zubayr yonente bi nàmpatal na ba noppi génne li ñuy tuddee deret nga xam ne xam nga nàmpatal moom mooy deret ji nga xam ne baaxul loolu dañuy génne ci yaram wi loolu nag yonente bi def na lool li ñuy wax nàmpatal def na ko génne deret jooji ci moom ba àggal jox ko ne ko demal tuur ko mu génn ba kenn gisu ko rek mu mu ne ko secc naan <laughs> ñëw yonente bi ne ko waaw ana ana kii ba mbaa denc nga ko mbaa suul nga ko mu ne ko waaw ah, denc naa ko foo xam ne dara mënu fa àggam <laughs> waaw mi nga sallallahu alayhi wa mi ngoog bi nee sax yonte bi dana ko sanaatu alladi amartani sanaatu alladi amartani bihi nee ko maa araaka maa araaka illa qad saribtahu mu ne ko yow de xëy na moom gis naa ne xam naa da nga koo naan rek nee na mu ne ko waaw naan naa ko mu ne ko nag ne la gaañi moytu ne la xeet bi moytu Abdullah ibn Zubar Zubair Abdullah ibn Zubair ku ne xam na ko doon góor goo xam moom kenn yëbu ko woon waaye deret rasul lay sala jooju mu naan moo moo ko def moo tax deret niñ doon keroog jataay bi ñu mujj def waa ji doon laaj ne deret sobe la maanaam deret sobe la ci nun ñi simple yi waaye am na ñoo xam ne sobe ñoom deret rasul lay sala sallam deret Cheikh Ahmadou Bamba yooyu sobe moo tax moo foofu la wute maanaam li ñuy tudde tuur ndox tuur ndox nga xam ne moo gën a doy waaram tuur ndoxam ku ne xam ne ne moom day am maanaam maanaam maanaam kenn ku ne xam ne tuur ndox li ñuy wax tuur ndox am na ñepp ko xam xanaa nga xam ne moom day am aw melaw maanaam kenn mënu koo naan moom te eh, imaamu Tabaraani net li na ne ummu ayman muy baraka nekkoon soxna soo xam dafa nekk ci biir kër Rasulullah sallallahu alayhi wa guddi jot na nee na mu mar xamut maa maanaam wër wër gisul nu kii mu fekk ab pot boo pot bi nga xam ne xam nga bu njëkk néeg yi wurmel yi amutoon li ñuy wax salle de nii amutoon boobu booba ay pot lañ daa jëfandikoo di ci def ndox yooyu bu ñu xëyee suba tuuri ko yonent bi daa xëy ne ko waaw ummu ay man pot boobu jël ko nga tuuri ko mu ne ko pot ban <laughs> mu ne bi bi bi nekk foofu ci nekk mu ne ko booba de naan naa ko la ca naan naa ko ba mu ba mu moom dafa mar ñëw jël jël jël pot bi ne ko secc naan maanaam te yëgul ne am tuur ndox la naan moo tax xamal ne loolu loolu maa lu mat a bàyyi xel la mooy yëgul ne moom naan na li ñuy wax tuur ndox xam ne tuur ndox moom kenn ku ne ci noonu boo ko jubee rek da nga xam ne li <laughs> lii tuur ndox la waaye xam nga ne tuur ndox yi bokkuñu waaw ndox mu rasulullah ndox mu sell la sallallahu alayhi wa sallama mi ngoog moo tax kon li sëñ bi wax ne wa huwa akmalul wara xalqan وخلقا ظهرا والمثل قط لم يرى ولن يرى في الشيم احمدنا رحمتنا حامدنا نعمتنا محمودنا فرحتنا والجود مزر الديم مو يرمان يالا جي يالا واتي سي كاو سوف موتاخ بيس بي ني فاج جي يونت فاج بيغ نتي بيغ لو ام سولو لا دار غنوكو ري لي سي سيغ بوخ غيس كو سي جيس بول yonent bi ci moo njëkk a màggal guddig feeñam gii ak bisu feeñam bi ndax dalaa we woor bisub altine ñu ne ko bañ ko laajee lu tax nga koy woor dafa wax ne daaka yawmun wulittu fiihi bis bu ci laa feeñ gis nañ ibnu nasiri diina dimashqi tere bi mu def ci mawlid mawlid mawlidu nabi mawlid ni ngeen ko xameen mawlid yu bëree bëri moo am mawlidu barzanji bii ñuy jàng ni am na yeneen mawlid yu mel yu bëri ibnu xajar def na ci benn ba gis nga Égypte fu bari ci zawaaya yi moom la jàng waaye nun sëñ bi moo tànnoon mawlidu barsan ji biri euh, ibnu nasiruddin dimashqi nag def na mawlid boo xam ni da caa wax ne abu lahab ku ne xam na ne moom yàlla ci moo ko moo rëbbu wax ne tabbat yada abi lahabin wa tabb ma agna anhu maaluhu wa ma kasaba sa yasla naaran mu mëntuta mucc moom waaye bis bi yonente bi feeñee da caa béggoon ba goreel ab jaamam bu ñuy wax suway ba suway ba moo ñëw nettali ko ko ne ko kat aminatu am na gone mu bég ca ba ne ko yow goreel naa la mbég moo mu ca bég nag moo tax bi mu faatoo abbas ibnu abdul mutalib moo ko gis loolu buxaari natt na ko ñu baree bari borom rawdul unuf nag as suhayli mu wax ne abbas moo ko gis abbas a ko gis ne ko abu lahab ne ko man day altine bu ne danañ ma génnee sawara wayo falal ma touti mbugal mi delluwaat ma jox ma touti ndox ma nan lol nak la tax ñu ma koy defal moy ba yonent bi feñé dama caa béggoon ba gorel sa suway ba ibnu nasiruddin dimasqi nag wax ca ne ida kaana hada kaafiran jaa dammuhu wa tabbat yadaahu fi fi ljahimi muxallada ata annahu fi yowmi lisnaini daiman yuxafafu anhu li sururi bi ahmada fama dannu كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا kee ab yéefar la yàlla tëkku ko ci alxuraan benn yoon la bëgg ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam benn yoon la bëgg ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu defal ko ci guddi altine gune ñu woye falal ko mbugal mañ koy tekk yowmal xiyaam léegi nag nun ñi nga xam ne at mënul nu bëgg ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nun kay sawaay lu rëy la nu yaakaar maanaam waxuma la ay sawara yëpp waaye àjjana ji gën a kawe foofu la ñuy dem bu soobee la <laughs> fa man yuazim mawlida nabiyina babil huda fala yuxaasabu gadan fa ka shahidin shahida badran bi gayri wahami fa innahu kaman xadar yowma xunaynin wa sabar kon rasulullahi sallallahu alayhi wa guddig feeñam googi lu am solo la ndax mu maanaam mbooleem li nga gisaat ci lislaam ñu koy màggal lépp li ji boo gisee borom xam yi yenn yu bari rawatina suufiyanke yi dogu ci ne guddi mawlid moo guddi moo gën ci guddi yi ci at mi ba ci laylatul qadri la tax mooy laylatul qadri moom yi bu dul woon guddi mawlid gi du am bu dul woon guddi mawlid gi laylatul qadri du am laylatul isra wal mi'raj du am layaali yi nga gis yëpp layaalil asr yooyu yëpp benn du ci am kon bis bi ci la lépp dale kon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li doon wax sax mooy li li suñu mën a wax ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu rahmatullahi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nag nee na rahmatullahi nag na ngeen ci bëgge ci bu ngeen dee nangeen na ngeen bëgge ci rahmatullahi kon loolu la suñu wax ne ahmaduna rahmatuna mooy yërmande ji nga xam ne mbindeef yëpp yërmande la ci ñoom waaw mbindeef yërmaane la ñoom xéewal la ñoom itam maanaam bis bi nun liñ ci def weesuur sant yàlla rek ci xéewalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laqad manna allahu ala almuminina is baata fihim rasulan min anfusihim foofii lu mat a taxaw la mooy sëñ bi wax na ne wa huwa alxabibu alladi min ajlihi xuliqat xalaayiqu llahi kal amlaaki walbashari wa kasamawaati wal ardina qaatibatan والبر والبحر مثل الريح والشجر وهكذا الجن أيضا مع بهائمها وكالجمادات مثل النبت والحجر بنده في دنگ رسول الله موتاخ نيو ساكلن صلى الله عليه وسلم سيني بي دوكو لي ملائكه ييك نييب موتاخ مو ساكلن وانا سبب كل نسمي تي لولو يونت بي موكو نيكا واخ ca imaamul xaakim ca mustadrak gënën na ci xadis boo xam dane xadis bu wér la mooy bi sayiduna aadama alayhi salaam defee la muy def ba jéggulu suñu borom da ko ñaan ci barkeb rasulullahi sallallahu alayhi wasallam dana ko asaluka bi xaqi muhammadin lamma gafartali wala lamma gafartali suñu borom ne ko yaa aadama wa kayfa arafta muhammadan naka nga xamee Muhammad walam axluqu te ñëwagut feeñagut jamono nga nga koy tudd mu ne ko li annaka lamma xalaqtani bi yadika wa nafaxta fiya min ruuxika rafa'tu ra'si fa ra'aytu ala qawaa'imi al-arshi maktuban laa ilaha illa allahu rasulullah fa alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabba alxalqi ilayka neen suñu borom ne ko sadaqta mu ne ko maanaam Seydina Adama li tax ma xam ne ma xam ko mooy damaa gis ci yu kawe yi ma sàkkee pays fuma tek ma rek damay gis bo def buñ defé la ilaha illallah ñu tek ci muhammadun rasulullah ma xamne nak sa tur bu sell woowu koo ca teg rek kay fonk ngoko motax ma ñaan la ci barkem nga jégal ma suñu borom ne ko nak ah sadaq sa wax nga deug de mbir mi non la démé innahu la ahabul khalqi ilayya ud'uni bi haqqihi faqad ghafartu lak ginaaw ñaan nga ma ci barkem kon jégal na la tek te ne ko nak walaw muhammadun ma khalaqtuka budu ko nak muhammad momu du la sàkk te bu aadama amatul nun kenn du ci am ci nun kon sayidna muhammad mooy mooy sa maanaam sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wér na ne ci leeram la nu yàlla sàkke la yàlla sàkke mbindeef yëpp jaabir ibnu abdillahi ci musannaf abdurazaq xadis boobu ni wax naa ba tey ne xëy na borom xongo bi moom def nañ seen nattukaay ba gis ne xadis ba xëy na wérut waaye nag nit yàlla yi wax ne ni moom sax a kas fan ñoom laaj nañ ko yónte mu leen leer na wér na <laughs> sax ak kas mooy wér na jaabir na abdulahi da ko laaj waaw lan la yàlla njëkk a sàkk mu ne ko nuura nabi yi ka yaa jaabir nuura nabi yi ka yaa jaabir ah loolu amul sikk mooy leerug yonente bi ci la yàlla sàkki mboolem arwaax yëpp aadamu mi nga xam ne mooy njëkk ci ci ci ci mooy mooy mooy bàyyi doomu aadama yëpp foofu ci adduna bii la ak jëmmi jëmm yi ñu xam alamul mulki waaye arwaax ya moom seen seen aadama seen baay mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam leeram googu ci lañ sakki mbooleem arwaax yëpp moo tax kenn ku ne jaam bu ne sa maanaam sa ruux googe leer gañ ko sakke maanaam dara ci rasulullahi mi ngi sa biir moo tax suñu borom waalamu anna fiikum rasulallahi laqad jaakum rasulun min anfusikum xam nga ko rasulun minkum min anfusikum maanaam kenn ku nekk ci nun sa ruux googi ci leer leerug rasulullahi lañ ko sakk nga xam ne yow boo amee tawféex yi di ko dundal ci lu baax ak di jaamu yàlla ak di tudd yàlla lu bari ak def salaatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maanaam day gën a dund ci sa biir rasulullahi di dund di ànd yow fi ne salaatu ala nabi sax am na am na am na am na am na am na déggin wu am solo woo xam ni xaw ma ñu bari seetlu lañ kom mu waaye dinaa koy junj ci misaal sunu borom ci moom dañoo wax ne yéen maa ngi malayka yëpp dañuy julli ci yonente bi inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi woonu nag yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi kaay leen yéen ngeen ànd ak ci loolu ngeen julli si ngeen julli ci bi waaye jaam ñi saxaaba yi bañ demee ci yonente bi ne naka la ñuy ci yow da leen wax ne da ngeen wax ne allahumma salli allahumma salli mooy yow julleegoo ba léegi allahumma sunu borom nga ko salli yow julli xam nga li wax set nañ ko déet manam jullik sun borom moy tëbb gumi muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam te rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci manam manam lu di am tëbb imdadat yep ci mom lay jaar ruham kenn ku ne ci nun bari na lo soxla soxla nga am feñ ci kaw suuf bok xam nga mënoon nga baña am bo feñe ba nopi soxla nga dundu dundu gi itam ay manam lahza bu ne sa suné dañ la koy yone fi ne xam-xam bi nga am ak kattan geeg kattan gi da ngay jëkkee rek fi ne gis nga néew doole lool bi ngay doog a judd ñu dina defal lépp nga mujj gis di yëg kattan kattan gi ñëw ba nam nekkee ca njobaxtan la mujj muy wàññikuwaat ba nga tëdd yor sab dokk maanaam yooyu yëpp dañ la ko yónnee loolu mooy imdaad si li nga li ngay am lépp xam li ngay xamak li ngay man ak man-man yëpp dañ la ko yónnee imdaad yooyu nag lépp ci rasulullahi lay jaar doog ak si ci yow moo tax te rasulullahi nag moom lay moom rek la yàlla imdaad moom la yàlla sànni mboolem imdaadaat yëpp mu mu mu sànni ko ñi ci des moo tax nag kon suñ borom yu salluuna ala nabi maanaam suñu borom salaatullahi ala nabi loolu imdaad la wala boog bokk na ca bopp nun na ginaaw nag suñu imdaadaat yëpp dafa aju ci rasulullahi sallallahu alayhi wa moo tax ñuy ñaan allahumma salli ala sayidina muhammad bu dee defee ginnaaw suñu borom lu mu ko gën a yokk imdaad rek suñu mbir di imdaad di gën a ñëw ci noonu xaw ma li ma <laughs> leer naa ne waxi yéen nag waxi daanukat la waxi <laughs> waxi waxi murit la daal <laughs> mi nga kon kooku mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa mag bi wax na ne <clears throat> wax na ne wax na ci majmaa ba ne aljana leeru kese la sawar ak lëndëm la leer nag ki koy jëmmal mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki laab te sell jiite mbooleem xisbullahil muflixina iblis nag mooy ki nga xam ne lëndëmu kese la yal na yàlla musal ci moom na muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi da wax ne dafa fees del aku yiw aku mbaax moo tax sunu borom wax ne atiiu llaha wa atiiu rasula nee na iblis noonum yàlla boobee nag dafa fees del aku ay aku noonoo mi kon sayyiduna muhammadun sallallahu alaihi wasallamah moy borom guddigi yalla yalla tass taas ci barkem serigne bu mag bi fonkoon nako lol manam moy ki ko gën fonk sax nak ci liñ xam ana ak ji ko joxoon yitte ji mu ko gise gise gisaguñu ku ko jox yitte jooju dañuy xol guddigi gamu gi ni manako misal fi rek ci darul moti borom daaru moxti ay bis gu ne la daa la daa dundal guddig mawlid mawlid gi guddig feeñu rasulullah te mooy guddig altine gu ne dañ koy dundal fii ci daaru moxti lañ gis kër goo xam ni mawlid la tudd ñu di ñu di nga xam ne ay bis gu mag ñi daje fa dundal fa feeñu rasulullah ma gàmm gàmm fa yemut ci loolu maanaam borom daarul moxti démb rek laa dégg sëñ Mbaye Guèye la wax lu am solo nee amoon na doom joo xam dafa tudd mawlid la ko tudde nga xam ne moog sëñ Cheikh Khady ñoo bokk bokk wenn waajur wu jigéen sax sëñ sëñ sëñ sëñ Abbas tudde na tudde am na sëtam boo xam ne mawlid moomee la ko tudde mu <laughs> borom daarul moxti loolu nag lu maanaam lu lu rëy la ci dundu yonente bi sala maanaam maanaam borom daarul moxti mooy ki jëmmal njàngalem sëriñ tuba maanaam murit bi nga xam ne lépp bëgg sëriñ Touba da caa daje loola ba joxe misaal man nga war ngaa jël borom daarul moxti ndax gàmmu gi itam lim ciy def lépp ci ndigalu sëriñ bi la ko doon defee sëriñ bee digal mu doon gàmmo ca 1902 ba mu jógee ca géej ga gàmm googee wax nañ ne ba gàmm ga jeexee da ko wax ne ko borom gàmm gi ci boom ren nun la gàmmul <laughs> sallallahu alayhi wa sallam ne ko nag bég na ci yàlla itam bég na boobee la borom daal moo tàmbalee gàmmo ba ba nëgën si musu ko nang ko ko bàyyi fi tey mawlid bii ñuy def nii wax nañ ne sëñ sëñ bi jaane sëñ Maxtaar jaane am na bis boo xam ne da taw taw bu metti ba na ñoom jàngiwuñ mawlud bi waaye daa jékki-jékki rek gis borom daru <coughs> ñëw néegam di ko fëgg ne lu leen tee jàng mawlid bi lu tee ngeen ñu ko taw bi mu ne ko génn leen nga génn leen gën leen ngeen nga xam ne boobu daa xuus ci taw bi dem dem dem fëggi ko mës ta nangu ku ko dog daaj yiñ ci daajit yu ci bari ci ci jamonoom lañ ko tàmbalee yemul ci loolu gis nga salaatantu na jinaa bi itam boobu la ko tàmbali mooy mooy mooy mooy takkusaan gu ne mag ñi dañ daje def def def junni salaatu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mooy salaatantu na jinaa bi boobu noonu waaw ci loolu gis nga moom ni ma ko wax dafa maanaam Sëñ Tuubaa moom lépp lu taq ci moom rek day day day day day am cuubug rasulillah sallallahu alayhi wa sallam maanaam Sëñ Tuubaa gis nga njabootug boppam gépp da leen delloo ci yonente bi sallallahu alayhi wa moom it noonu la def delloo leen ci yonente bi ak ci saxaabaam <coughs> kon rasulullahi sa alayhi wa sallam loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy guddeem yonente bi nag sëriñ bi wax nañu ne kenn yëmul ak moom yëmul ak leen nabiyuna ahmadu faaqal anbiya war rusla wal amlaaka inda rabbiya moo kawe ñëpp malayka yeeg yonente yeeg ñëpp moo leen kawe ndax ñoom ñëpp it ci leeram lañ leen sakke xam nga loolu kon moom bunta boog mënuñoo yem ak moom waaw kon gis nañ ci alquranul karim <clears throat> sunu borom ci moom <clears throat> wax malayka wax wax yonente yi ne leen sunu borom nettali nañu ne bis dajale na ambiyaw yëpp ne leen ku ci dajeeg rasulullahi sallallahu alayhi ko topp topp ci ginnaawam fi ne yonente yu njëkk ya yonente yu njëkk ya dañ fee nekkoon ngir ne rasulullahi ñëwagul rek waaye bu yor rasulullahi feeñoon seen jamono dañuy bàyyi lépp ñëw topp ci ginnaawam loolu la wax ne musa alayhi salaam Seydina Moussa alayhi salaam bu fi nekkoon faw dee topp sama ginnaaw loolu yi la wax sallallahu alayhi wa suñ borom nett na ne dajale na mboolem ambiyaawu yëpp jël ci ñoom miisaaq mooy accord buñ ku ci dajeeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama na nga topp ci na nga topp ci ginnaawam lama aataynaakum min kitaabin wa xikma thumma jaakum rasulun musaddiqun lima maakum la tuuminunna bihi wala tansurunnahu ñoom ñëpp ñu nangu loole ñu signé ñu signé ko foofe loolu euh, day feeñal lii sëñ bi wax nabiyuna ahmadu faaq al anbiya wal rusla wal amlaaka inda rabbiya moom la sëñ wax ne alal baraya wa anqaaha wa akramiha muhammadin man lahu ma ma muhtasiba yaa nga xam ne mbollem gañu gaañu baax ñëpp fañ yam neena fofu la yoonte bi tambalé nihayatul nihayatul mahi wala bidayatul mahi nihayatul khiyar faddalahu ala alwara dul ixtiyaar waaw wax ne itam lim am ci daraja ak mat kenn fepp ko ca xaaza nabiyullahi ma la ya'lamu illa alladhi lawhu lahu wa qalamu amna ci ay may ak mat ak kawe ak daraja yu reey lo xamni neena nee na ku dul suñu borom rek xamoko darajatul muxtaari faqat asiyar khabat ghabat an al albab faqat al ibar ndax ñëpp ci mom lañuy teub teub lo lolu sëñ wax dañu naané min yumni atal kiram al madad manam madad ci barkem lay lay amé kon rasulullah sallallahu alayhi wasallam ku mag daraja la koo xam ni sunu borom ci moo ko fonk ni ma ko waxee lu bare baree bari sunu borom amul dara lu ko war waaye gis nañ dana julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla ñuy def yëpp sunu borom lañ ci jublu waaye moom nee na am na am na lenn genn lu ñu genn jaamu yàlla goo ne rek moom lay def amul maanaam genn jaamu yàlla gu sunu borom def moom amul ndax moom la ñuy jaamu waaye genn jaamu yàlla la def te mooy julli ci yonente wa sallam yusalluuna ala annabi yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ma jeexale rek wax yennati mbir yoo xam ni day wane day day ay xususiyaat la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag yu bare bare la yoo xam ne borom xam bind nañ ci ba tey ku mel ne Jalaluddin Suyuti bind na alxasaisul kubra dajale ca ay jagle yoo xam ni rasulullahi sallallahu salaa wa moom la ko yàlla defal te eh, kenn fekk ko ca loolu nag mënees dana am ñu ci mën a doon aslëf dana si am ñu ci mën mën a doon aslëf te duñ àgg ca moom fi mu ne danaay wax ne suñ mag bi li wax ne ala alladi bayni wa baynahu tasal bi lan fisaalin loolu mazhar wira wiraasa boo xam ni kenn mënuloo kenn mënta xam biir ga dëgg-dëgg kenn mënu koo leeral fi ne ittisaal moo am diggante mag yonente bi boo xam ne bi leen fi saalin waaw waaw ittisaalun bi leen fi saal nag loolu moom ak lii Sidi Ahmadou Désiré ba sa wax ne ca Jolof Sidi Ahmadou Désiré wax na ko ci almaqulaat ne ca Jolof dafa mas a wax ne mësula jàpp ne lépp leeru yonente bi xaj na ci jàmm ba ni mu ci tegee bët bët ba mu ca tegee bët nag moom moom jëmmam rek la lay doon kon mbooleem kamalaati rasulullah sallallahu alayhi wa sallam itam ñi nga xam ne ñoo ko topp danañ koy mën di doon waaye duñ doonu léppam ku mën a dem nag ba doon ca loo xam ne xam nga du teggin sax nga ne ku doon lépp waaye ku jël lépp waaye ko waaye waaye ndax ruux yi dañoo wuute kenn ku ne ruux gu ne la mën a naan ci leeru yonente bi sallallahu alayhi wa du ca day wuuteeg morom ja waaye sëriñ mag moom fam ci àgg foofee yàlla def na kenn aggu ca mi ngoog sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci jagleem <coughs> bokk na ci jagleem ci lu gàtt mooy mooy awwalu nabiyina xalqan moom la mooy yonente bi yàlla njëkk a sàkk ndax nee na ba muy nekk yonente booba aadamu baynal maa i wa la munjadilun fii tiinatihi mooy yonente bi nga xam ne ni ma ko waxee léegi sunu borom dajale na yonente yëpp jël ci ñoom ñu signé kenn ku ne signé ne boo dajeeg yonente bi na nga ko topp wa id axada allahu mithaqa nabiyina lama aataynakum min kitabin wa xikma summa jaakum rasulun musaddiqun lima maakum la tuuminunna bihi wala tansurunnahu mooy yonente bi nga xam ne yonente bu fi mas a jaar maanaam wax na wax wax na leen ne sama ginnaaw kat ku ñuy wax ahmadu dana ñëw te gis nga sayidna na isa mi ci mujj wa mubashiran bi rasulin yaati min baadi yasmuhu ahmad kon yonent bu fi mas a jaar rek bégal na saw xeet ne leen kat rasulullahi dana ñëw sama ginnaaw loolu loolu ci moom rek lañ ko gisee mooy koo xam ni ñi ko meññ ñëpp kenn ku ci mas a jaar ci maanaam maanaam li ñuy wax sëy boo xam ne du sëy bu dagan sax amut mësta am ni ko sëñ bi ni ko sëñ mag bi waxee mooy ki nga xam ne itam bi mu feeñee adduna sëpp dafa leer ni mu ko waxee moom moo ko yonte moo ko wax wax ne maanaam waajuram bu jigéenam dafa gis leer goo xam ne dafa leeral ba ca ba ba ca saam xusóor a saam li sëñ bi wax xusóor a kaysara satan xiina wulida xayru nabiyin xat bada salla alayhi man hada fuaadahu bil xikami noonu la nuurun azimun qad yara bihi qusuura qaysara mi ngoog mooy jëmm joo xam ne itam eh, eh, fu maanaam ker gi da ko daa topp da daa niis fu masaadi dox gis nañ ba muy dem saam ànd eh, maysara maysara daa seetlu maanaam ni niir wi niir wi da koy topp fi ne naaju lu mu tàng-tàng moom fi mu ne ni day nii day maanaam day day day ker xam nga léeg-léeg digg naaj bi da ngay gis lu mel ne aw niir nuñ ko niir lañ koy waxaat woo xam ni day day keral ci bërëb moom nag niir woowu da ko daa topp rek fu mu jëm rek mu topp ko gis nañ ba mu ànd euh, ak Abu Taalib di dem Saam biñ biñ demee ba bay noppalu ca Buxayra ca ca ca ca labbe boobee <coughs> garab gañ toog labbe bi daa seetlu ne ker gi bi ñu toogee bi gars yi ñëwee toog ci ker gi yonent bi moom xaw ma booba euh, tuut tànk la ci ci sayir daa nekk doon doon doon doon doon maanaam waru waaye la doon lijjanti mujj ñëw bi mu ñëwee ci ker gi nag fam fekk kenn toogu fa foofa ker ga nekku fa naaj wa dafa féete mu ñëw toog foofa fa boo seen seen seen maanaam ker gi ci moom wëlbatiku de <laughs> fekki ko mu xam ne ke moom ab yorante la hmm. loolu nag ci moom ci moom moom la ko yàlla ci jagle yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk bokk na ci itam ci jagle mooy mooy mooy mooy xar gi ñu xar ab dënnam malayka yi ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gën jaa néew juróomi yoon wér na ci yoo xam ne ñëw nañ tëral ko xar dënn bi am luñ ci génne loolu nag borom xam yëpp dañ ko firé ne xadu seytaan la mooy cërub seytaane waye yonente bi seytaane amul ci mom aw yoon maanaam yonente mom nabi yu la bo xamni ne muy feñ mom la won bimu feñe mom la bimu fi jógee mom la nabi nabiyun mom naka jek mom la nabi yi nak masum la boole ji ba tey kon seytaan amul ci mom aw aw yoon xadu cërub setan nak kon moy cërub setan ci yërmande yonente bi sallallahu alayhi wasallam xam nga yonente bi moy rahmatullah ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin alamin moy min def yëpp lu yàlla rek moy alamin alhamdulillahi rabbil alamin yàlla lim lim li nga xam ne la yàlla sàkk lépp mooy alxaalamun seytaan nag ci loolu ci seen biir la bokk léegi nag yërmande yàlla jooju nga xam ne moom mooy yonente bi sallallahu alayhi kon am na cib cër cër boobee ca seytaane am nag moom lañ génnee nga xam ne moom yonente bi ko mën a du du ko yërëm ndax bu ko yërëmee maanaam laa tahdi man ahbabta itam noonu lañ koy déggee ñi nga xam ne waaleykum salaam wa rahmatullah xam ma ma maanaam yonente bi moom ak mbaxam ag na ci ñepp lay bëgg ñu muccu ñepp lay bëgg ñu muccu motax suñu borom ah taxawal ko ne ko amna ño xamne mënu muccu nak mo iblis mom xam nga lim def lepp koku mën ta muccu mo la tahdi man ahbabta waye amna fenn wax ne ko innaka la tahdi ila sirati mustaqim <coughs> ci yonente bi lañ gis suñu borom tuddu ay cërem benn par benn nga xamne cërem yépp la tuddu ci alquran gis nañ mu tuddu xolam ma kadhabal fuadu ma raa gis nañ mu tuddu روحا نزل نزل به قلب نزل به الروح من على قلبك لم ينتبه تدنكو وخني وما ينطق عن الهوى فإنما يشرناه بلسانك تدنا يتم gisub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma zaagal basaru tudd na xar kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qad nara taqalluba wajhika fi samaa'i tudd na loxo bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala tajal yadaka maghlulatan ila unuqika tudd na sax dëndam bu sell boobee alam nasrah laka sadrak wa wadaana anka wisraka alladi anqada mi ngoog mboolem cëram yëpp suñu borom da ko tudd ci alxuraan sallallahu alayhi wa sallam mooy jëmm joo xam ne tam aw turam dañ ko xare ci turu sunu borom tabaraka wa taala loolu la sëñ bi wax ca fathul fattah wax ne moom sunu borom mahmud la mahmud nag ci lañ xare muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy tur woo xam ni moom moom kenn xamu ko woon ak ak maanaam ak njëkkam waaye yàlla jagleel ko ko bokk na ci jagleem itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa danaa def li ñuy wax wisaal mooy weeru koor danaa mën a woor maanaam fukki fan yu mujj yi danaa def wisaal li ci ëpp nga xam ne du maanaam dog day jot du dog mu wéyit noonu ba ba ba ca ëllëg sa bu subaa itam dog jot dootu du dog du mos dara ba ëll continué bu ëllëgee itam moom dog jot mu bañ a dog continué sahabe biñ ko ci bëggee rey am ñoo xam ne bañ tàmbalee da nga am mbir mi xaw xam nga ñaari fan boo ko amee xewloo <laughs> mu ne leen yéen lii bu leen ma ci rey ndax man kat abitu inda rabbi yut'imuni maanaam man damay fanaan fa suñu borom mu di mu di ma mu di ma leel xam nga kooku yow boo ko bëggee roy ci ci loolu xam lu doo dem mi ngoog kon euh, mooy koo xam ni itam yàlla da koo defaloon le muy leeru kese xad jaakum minallahi nuurun loolu la nuurun wa kitaabun nuur nag mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam sunu borom tudd na ko as-siraajil muniir shahidan wa mubashiran wa nadiran li tu'minu billahi wa rasuli nu ko waate inna arsalnaaka shahidan wa mubashiran wa nadiran li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu am na deen feneen fu mu wax ne wa siraajan muniiran Mana sun borom mako tudde munir manal manam jëmmi leer la jo xamni day leral lu ko jege boo ko asirajul asiraajul sirajul siraajan koku jant bi yow sirajul munir nak moy rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. bokku na ci tam ci ay jagleem moy sunu borom bam ko rañaanee àgg na foo xam ne mbindeef nañ ko eh, yoonte yépp baytul muqaddas mu jité len julli lolou moy xamné moy seen kilifa waaye yemul ci lolou mu yegg ci kaw asamaan ba ag de nga asidratul muntaha nga xamné malaika fa lañ mëna yam jibril ne ko man buma doxate ab jéggu damay lak yow nak bul neex nga bëtt rek dem bokkuna <laughs> mi ngok ba ag nak ca fasul borom tabaaraku taala ma basaru wa ma te li wér ci mooy mooy gisee naa gis na suñu borom tabaaraka wa taala nam ko gisee nag loolu moom kenn mënu koo xam suñu borom moom daa bokkut ak lenn laysa ka mithlihi shay'un moo tax nañ koy giseek na mi mel loolu moom xel mun ca mun caa jëm kon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama suñu borom it jox na ko ci mujisa loo xam ni kenn mus caa àgg ci yonente yoo ko jiitu woon la ci gën a kawe mooy alquranul karim nga xam dafee des moom di xar baax goo xam ni ba léegi si dafa jaaxal adduna sépp ak mboolem ku xam alquranul karim bokk na ci jagleelam itam <clears throat> eh, mooy moo mooy yonente bi mujj mooy xaatamul am yi mooy yonente bi ëpp itam ñu ko topp mooy yonente bi nga xam ne itam ab ah, maanaam diine jim indi ci ñëpp la jëm di yonente yu njëkk yi kenn ku ne saw xeet rek lañ la yónni moom nag ñëpp lañ ko yónni mooy yonente bi nga xam ne itam suñu borom àgg ci fonk ko ba daa wax teggiin yi nga xam ne noonu la ñuy war a ànd moom wax na saxaaba yi ne leen laa tajaalu duaa ar na kum ka duaa yi baadikum baadan bu ko kenn woowee ni ngay woowee sa morom bu ko kenn wooyee ni ngay wooyee sa morom imaamu Nawawi nee na loolu kon li ñu war a wax mooy yaa ayyuha rasulu wala yaa rasulallahi wala yaa nabiyallahi waaye kenn sañu koo ñëw rek di ko sàllalu di wax muhammad déedéet sàllalu ko loolu duy teggin suñu borom ci yom moo ko aaye suñu borom wax na ci alxuraan laatar laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi te foofa da ca wax wax ju rëy rëy fi ne tey bàkkaar yii nii lim rëy rëy rëy loo ci def moo xam naan sàngara la wala njaalo yooyu yëpp da am bàkkaar waaye nag sa jëf ya nga jëkkoon a jëf na du yàqu waaye rasulullahi boo toogee fi wetam sa kàddu gën a kawe kàddam sa jëf yi nga ma sa jëf yëpp day yàqu <laughs> laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri baadikum li baadin an tahbata amalukum wa antum laa tashuruna waaw du ngeen ko yëg waaye sa la nga mas def lépp moom yàqu na nga tàmbale zéro moom yow <laughs> suñu borom àgg na ci wax na ñi nga xam ne ñoo koy jooru xam nga loolu duy teggin tollu fële di ko di ko mu xam xam loolu sa am na sàmm arab yoo xam ne dañu ko daa def mu ne na yu inna alladina yunaaduunaka min waraa'il hujuraati aktharuhum laa yanqiluuna maanaam ñooñu dañoo amul xel seen yonente bi da nga toog fee di ko da nga ñëw ba agsi bi moom xam nga loolu mooy teggin maanaam teggiti teggini murid yi yëpp fi ne teggini yi def ci murid fi ne maanaam moom mooy lay lay suñu borom jàngaloon sahaaba yi ñu war ko dundek rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw mi wax na itam ne ñi am taqwa dëgg-dëgg inna alladina yaxudduuna aswaatahum inda rasulillahi ulaika alladina imtaxana allahu qulubahum li taqwa lahum magfiratun sëñ bi loolu am maanaam lonte bi maanaam ci nga yëg ne jaam bu yàlla fonk la sëñ bi laa lay wax maanaam du nit comme nun ñii comme sama kalaas gi bokk <laughs> yaa ngi dégg maanaam innama ana nu basarun nu ko waxee yuuxaa ilayya nag loolu la ca teg loolu moom moom moo ko wutale noonu dinaay wax ne alquranul karim ay aayaa ngi yoo xam ni keneen ku ko waxoon ku may alquran rek yow génn ñu génn ci diina ji bu yàgg foo ko xaw yow ni la yow yow yéefar nga yow li mu wax ne inna alladina yubayi'unaka innama yubayi'una allaha xam nga innama boo ko dëkk annama bu noonu ka annama yubayi'una allaha kooku moom xam nga dafa mel ne waaye innama innama adatu xasr la maanaam ñiy jaayante yow kan lañu jaayante allah innama yubayiuuna allah fi mu ne allahu tur la woo xam ni moom yàlla kese moo ko jagoo fi ne kenn suñu ko tudde doom nga tudde ko keneen keneen du ko tudde keneen ne am na tur yàlla yoo xam ne sax danañ ko jox ay mbindeef alhaadi wala bokk yonente bi gis nga raufun bil muminina raufun rahim waaye allahu moom yàlla kese moo ko jagoo mooy tur bi nga xam ne moo moo moo moo moo dajale moo dàmbe mboolem tur yëpp nga moom mooy dëgg-dëgg turu yàlla nga moom mooy al ismul azam moom te moom la jëfandikoo ci aaya bi inna alladina yubayi'unaka innama yubayi'una allah gis nga fee mu wax ne wa ma ramayta is ramayta walakin allah rama <laughs> loolu sëñ bi na de allahu rama <laughs> yonte moo sànni am nga ngëbub suuf te yéefare mu fàttali leen ñoom ñëpp jaxasoo suñu borom nag ne ko nag wa maa ramayta is ramayta xam moom waa is ramayta daa saxal ne yow yaa sànni woon nag waaye nag allahu rama <laughs> xam nga loolu allahu wa rasuluhu axaqu ay yurduhu ay yurduhu foofu gis nga demir bi mu delloo ko ci ci ñoom maanaam ko xamul fu mu dellu foofu allahu wa rasuluhu xam nga rasulu moom moo mujj ñëw te aamil bi mujj fi ne ci la demir bi war a dellu allahu wa rasuluhu axaqu an yurduhu loolu nag buntu la bu rëy boo xam ne buntu daanukat la nag loolu moom moom moom <laughs> maanaam daanam daanukat bi ne ci diine la bokk <laughs> loolu nag moo la xamal daanukat am na cëslaay bi ne ci ci lislaam waaye nag loolu du du la ñuy fësal mi nga kon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daal noonu la mel euh, moom bari na jagle yoo xam ni yonente bi maanaam borom xam dañ ko lim muy ay ju muy ay junni junni mbir yoo xam ni da ko wuteeg ni ñi am na lu bari luñ ci waajaloon waaye nag buñ ko toppee damay ragal ne du fi xaj moo tax moom mm, gàttal gi daal mooy <clears throat> moom jaam yàlla fonk la boo xam ni moom sunu borom ci moom moo ko jox cër bi mu am sàkk ci sàkku ci mbindeef yi itam ñu fonk ko ba tax na <clears throat> gis nañ ci yonente yi ku mel ne sayidna Muusa day wax ne wa ajiltu ilayka rabbi li tarda nga xam ne day def yitte ngir àgg ci ngërëmul yàlla ngir yàlla gërëm waaye gis nga sunu borom moom sayidna Muhammad moom àggul ci def benn benn yitte moom wax na ko wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda <laughs> maanaam yàlla ne dama dama lay jox di la jox di la jox ba ba nga gërëm gis nañ kenn ci ñoom daal ne rabbi israh li sadri mu sayyidna Musa israh li sadri ndax day ñaan yàlla maa defal li ñuy wax sarxu sadri leeral dënnam waaye suñu borom moom yonent moom jot àgg ci ñaan alam nashrah laka sadrak wa wadaxna anka wisraka alladi gis nañ <clears throat> xam ni ci ñoom dañ la wajaal lii lisaana sidqin <clears throat> fi laaxirina am day ñaan yàlla defal ko Lisanu sidq Mana yëkkatil ko jam jam ko fofé waye sun borom mom gis nga yonte mom jotta ñaan wa rafa'na laka dhikrak mi ngok lolu bari na lol ci alquranul karim loolu lepp nak bu andé motax tax bi da wax ne <clears throat> ala wa wa ana habibullahi wala fakhra wax né may soppé may soppé sun borom bi tabaraka taala dafa mas a génn fekk saxaaba yi kenn ku ne di wax jagle yi yi suñu borom defal yonente yi kii ne ah de suñu borom nee na moo ko bind bi yedde yi te loolu rëy na lool waaw istafa Adama itam suñu borom it nee na moo moo ko moo ko tànnal boppam wa nuuxan wa ala ibrahim ibrahima itam ñu wax suñu borom ittaxada wa taxada allahu ibrahima xalilan suñu borom a ko jàppal jàppeb xarit def ko xarit na lool sayyidna isa itam sun borom ne moy kalimatuhu yonente bu neñu wax ak jaglem fek yonente baa ngi leen dégg mu jekke ne leen loolu ngeen wax de lepp werna waye nak man nak may habibullahi <laughs> man man may soppeeb sun borom bi wala fakhra tek ca ne wa ana xaamilu liwa ilhamdi yowma qiyamati wala fakhra li wax liwa ulhamdi maa koy raayoo maa koy maa koy téye yowmal xiyaama man la ko suñu borom di jox wa ana awwalu saafiin wa awwalu musaffain yowmal xiyaama may njëkk a tàmmali rambu mi ndax yowmal xiyaama xam nga mbir mi njëlbeen ngi day doy waar lool moom ñëpp jàq ñëpp tiit mbir mi jafe xam nga suñu borom day leen bàyyi ci benn bërëb boo xam ne da leen fay bàyyi ab diir bu yàgg du wax ak ñoom buñ demee ba mbir mi metti nag tàngoor wi metti nit ñëpp dañuy daw dem ca ah, dem ca seen maam sayyiduna adama ne ko nak waxal waxal ak sun borom hadis bi yoy hadis yi wer la mi ngi ci bukhari ak muslim ñep sayyiduna adama neena ah, mbir mi nak <laughs> sun borom du <laughs> ni ngeen ko xalaat demewut non inna rabbi ghadiba al yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa lan yaghdaba ba'dahu mislahu sun borom de daa am mer mum andal mo xani mom mom seigne mu fa dem di wax dara ndax man da am lu ma aaye wa asa adama adamu rabbahu maanaam ah, dafa am lu lu mu mas a def loo xam daal tax na mënoo faa dem moom di ñaan dara moom ni leen dem leen ci nuux Seydina Nuux it bu ñu demee mu wax leen loolu buñ ko moon leen moom it a ah, suñu borom tey ji daal na rabbi ghadiban yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa lan yaghdaba ba'dahu mislahu noonu lañ ko toppee dem Seydina Ibrahim dem Seydina Moussa ba Seydina Isa kuñ dem mu wax leen ne man kat am na lu ma lu tax daal mënumaa taxaw fi kanam suñu borom di wax dara di ñaan dara sayidna isa nag moo leen moo leen wax dem leen ci sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayidna muhammad nag bu ñëwee mu leen ah ana laha mbir moomu nag yéen da ngeen ba fa jógee fu ne ngeen nem xam nga <laughs> mooy loola waroon teel a ñëw ci man mooy mbir mi lool man rek maa ko fi man <laughs> man loolu lay tekki dal maanaam nee na day taxaw nag fa kan fa kanam suñu borom nag waqanteeg moom ci ay xeeti mahamid ay sant yoo xam ni ay xeeti cant goo xam ni ak kañ goo xam ni keroog bis boobee la ko suñu borom di xamal nga xam ne mosu koo xam moom njëkk loolu bu ko waxee ba noppi nag suñu borom ne ko irfan ra'sak ne ko yëkkatil sa bopp jugal isfa tu shafa wasal tonta maanaam loo laaj ma jox la ko jugal loo laaj rek ma jox la ko koo ràmm it koo rek ma tin ko am na ci riwaayaat yi boo xam ne ne ko yetu aadam li may tinu mooy zuriyatu aadama maanaam doomi aadama yi daal laa bëgg na nga nga dimbali leen te lijjanti leen mu ne ko bisimilah léegi demal boo demee koo fekk mu am dara ci ngëm nga jël tabal ajana mu mu mu xam nga yonent bi nag daal na ay gaay Sëñ Tuubaa xam nga mooy ki topp ci moom moom ñoo ne ànd nag bu ko dee ñu dugg nag ci biir gaay yi lijjanti kuñ gis nag am dara ci ngëm ndax ngëm yi ba day day day leer kenn ku ne sa leeru ngëm ci say xar kanam lañ ko xamee bu ko dee nag kuñ gis nga am ngëm googu rek ñu yóbbu dugal waaye nag yonent bi du ca yem day ñëwaat taxaw fi suñu borom ne ko ah mbir ma gaa ñi dañoo des lu bare bare bare xam nga mbindeef yi dañoo bari ba ba yàlla sakkee àdduna ba mu ne ko waa delluwaatal koo gis mu yor lu toll ci ngëm ne <coughs> ndax ay misaal yu bare bare la ci mi ngi ci xadis yu bare bar rot na ci yaakaar naa waxtaan nañ ko ba tey ba àgg ci ne ko koo gis ku ku mas a wax laa ilaaha illallaah jëlal tabal ajana ñu dem dugg ci gaañu ku ñu seet koo xam daal mas ngaa kii ñu jël noonu lañ koy toppee moo tax suñ yonte wax wa ana awwalu safi'in wa musaffa'in yawm al-qiyam wa ana awwalu man yuharriku al-jannati fa yaftahu Allahu li moy njëkk tabbi aljana aljana buñ buñ lijeenté ba gañi demit ku dem na ngay taxaw ci buntu bi na xaar ba yonte bi ñew moy njëkk duggu de nga gañi duggu waye neena fa yudkhiluni ha wa fuqaraul muminina fuqaraul muminina moy mutasawifay al fuqara moy mutasawifay moy ñi nga yéguñu ci seen bopp genn kattan mbaa menn pexe yéguñu dara ci seen bopp xamuñu ne am na maanaam innama sadaqat lil fuqara yi noonu ko wax mooy li suñ ci wax ne wala tajaalul faqra xinaakumu abad maanaam faqar bi nga xam ne moom mu moom murid moom la ñuy dunde nga xam doo yëg sa bopp dara doo yëg ne am nga dara doo yëg ne mën nga dara lépp da nga koy delloo rek ci sëñ bi te sëñ moom la ne ci moom it day dellu ci suñu borom tabaaraka wa taala loolu fuqaraaw yooyu nag yonte bi nee na maa ngi ñoom ñooy ànd njëkk a tabbi nag biir àjjana gaa ñu doo ko dugg si nag yonente yeeg gaa yi gaa yi ci des yëpp doo ñëw <laughs> kon kooku mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yal na yàlla taas ci barkeem yal na yàlla defal tawféex yi <coughs> guddeem gi nu am ci lu kawe sunu njort nun ñëpp ci darajey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama dama xamul ba xam dan nañu def jotaay bu gëna gudd benen gudd jotaay moom gudd na ba nopi xamna ay laaje yo du fi xaj wala señ mam Cerno bu amon kaddu gu mën sanni nu barké ko man dama doon jëm rek te limi wax man na nek waxe waxe waxe murid waxe waxe daadu kat limi wax nak waaye rek limi wax lepp nak lu ci ne wér na nag wax nak lepp lu wër la wala yonente bi sallallahu alaihi wasallam dal moy xettal moy xettalu jamm moy buntu bi gëna gaaw moy babu suudi xam nga jàng ngeen fii léegi wa huwal jëliyu wa huwal xafiyu wa huwal xafiyu mooy li ma doon wax léegi mooy anna fiikum waalamu anna fiikum rasulallah waaw bunt bu mag màgg ngi noonu nag ci ci ci ci xam li xew li sëñ Muntaxa tudde xam li xew <laughs> bunt boobu ñu bari mën ñu ko xam gis nañ sëñ mag bi ci bi mu dem ci géej gi te mbir ma jafe mbir mu bu mi jafe rek rasulullah gis nga lay woo axis nii axis nii yaa shafii wasilati huna wa gadan <clears throat> yowma sama u tamuru waaw xaw mbir yi maanaam sëñ Tuubaa moom moom moom mooy mooy koo xam ni mësula jàmbat moom sëñ Tuubaa mooy ki gën a jafe nag ci kaw suuf moom ndax li ko yàlla teg ci ay nattu te mësula jàmbat loolu moom mooy ki gën a jafe mooy ki nga xam ne moom moom moom moom ku mel ni moom musiifu ko xam moom pas-pas bi ko yàlla joxoon bi ko yàlla joxoon loolu nit dootu ci àgg ba tax na mboolem nattu yii ko dal yëpp te li ko dal gis nga maanaam fanweeri atam ak ñett yi mujj ci dundam yëpp ci nattu la ko nekk mooy géej géej gànnaar ak te gis nga lépp ngir diggam ak rasulullahi rek moo sabab loo lépp xusuur yi xalat wal ahlu anni tafarraqat li madxi alladi anhu qasiru waaw moo nu xamal ne <clears throat> rasulullahi mooy buntub yàlla bi mooy baabu suuli ilmi bi anna ilahi la sharika lahu wa anna ahmada baabullahi di di niami nee na loolu xam gi ko xam لي قاد ما قاد من علم ومن أدب والدهر يغبطني ذو العين والنعم أنا خمنا يونت بما باب الله لولو أبنت بنت لبكوي yonente bi mooy xettali jaam ñi fi ne yowmal xiyaam ginnaaw ñëpp ci moom la ñuy dem mu wax ak suñu borom mbir ma doog a lijjantiku mooy moo tax suñ suñ tubaab tuddee ko xaws salli ala xawsin wa xaysin wa xiyaas وسلما يا من محابل امتياز بو دوغي لو ملني خدمه الكبرى ايتام داي غيس فيني مو جوك فتور يو باري باري موي الاول سيغ بيكو واخ موي الاخر موي الظاهر موي الباطن <laughs> نيرا موي المعطي ايتام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعطي موي المفتاح ايتام موي خير ملازن ايتام نينا ايتام li gën a gaaw ci yàlla nangu sa ñaan mooy mooy mooy nga ñaane koy ci dara daraje rasulullah sallallahu alayhi wasallam yallaahu yaa qaribu yaa mujibu salli ala alladi bihi tujibu bihi tujibu kon maa ngi jéglu bu baax amoon naa yéene daal ci eh, gën a kii waaye moom loolu mooy mooy mooy jataay bu fekk bu fekkee ne mas na cee dool dara sëñ maam Thierno maa ngi sàkku ci moom dool dolli ay kaddu kaddu bu nga nag nu diglu xasida te def te te xewlu te dem nag ca penc ma àggale fa jotaay bi maa ngi jégalu bu baax bu fekkee moom njuum te am na lépp noo ngi koy tuub ak a jégalu di ñaan yàlla mu taas na ci barkeb rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam defal nu tawfeex yi murit gu gu yàlla gërëm waaw boole noog sëriñ itam ci boole goo xam ni dara duna mën a teqalikoog moom waaw biig maa ngi wax ak sama mbokk yi ma ne leen sëñ mag moom nun mënatunoo teqali ko sax nag moom ndax ndax noonu moom moonu moom moom wax na ne ca asal ca asal la tànnoon ñi ko topp tawféex ji gën a rëy nag mooy loolu yi moom tànn gim nu tànnoon nga xam ne moom noonu danoo boole woon ci boppam moo tax mënunoo teqali ko moom bëgg ko bëgg itam loolu rek lay tekki mais dafa am lu nu lëkkale loo xam ne yàllaa ko def suñu digg ak moom te loolu ca asal la woon ci Ezel la la woon dem am na ku wax bayit wu am solo ma xamut bi biñ toogee fee boo xam day tekki day tekki lool yi kon loolu nag mooy tawfeex ji gën a rëy yàlla boole nag moom moom it nag mu mel ci rasulullahi noo xam ni kenn mësu koo mel te loolu jëfam ju kawe ak yitteem ju kawe ca la bokk donte nag mbaaxuk suñu borom it ak tànnam ak ak ak inaaye suñu borom bu ko topp moo ci am waaye daa jëf-jëf ju kawe lépp luy maye lu baax rek fi ne moom yelloo na ko maanaam lépp loo xam ne jëf dana ko maye rek sëñ ma sëñ yelloo na ko ndax li ko yàlla jaral rasulullahi jaral ko ko loolee day monsieur Fouta gis kum ko jaral moom waaw maanaam li ko yàlla jaral te te sëñ bi daa gaawut a doylu fi ne lim daa wax mag ñi lu ngeen am ci yàlla rek na ngeen ko jéggi te xam ne lu ko kawe ma ngi ci ma ngi ci kanam noonu yi la doon doxe yal na yàlla taas ci barkeem yal na yàlla defal tawféex yi eh, bokk ci ña koy gën a jege daal <laughs> dara ji sëñ Tuubaa bisimilah kon xam naa moom luy sëñ maam Cerno doo doo eh, kon sëñ bi njëkk yëkkati غنيمته تحسين مدح المجتبى دون اتغاذي فضة وذهبا غنمت حب المصطفى وأكتفي بذاك فالمعطى كفافا يكتفي غنمت حب المصطفى